mbégte bu baax a baax ci invitation bi euh, léegi doyen dafa wax lu mu lu am solo ci wàllu éducation loo xam ne lu jar a bàyyi xel la comme nguur gu bees la ñu yor mhm. te nguur gi aussi dafa am lu mu proposé woon wala boog lu mu jaayoon sénégalais yi euh, muy lu ñuy tuddee projet euh, projet boobu boo ko xoolee ci biir am na parti bu mag a mag a mag boo xam ne jox na ko éducation xëy na aussi dafa dañoo déglu ñoom xëy na sénégalais yi ba xam li ñu bëgg dëgg-dëgg wax na ko léegi ci wàllu réforme bi nga xam ne war na am ci suñu curricula yi suñu programme bi nga xam ne moom lañuy ñuy jàngale euh, ba ëllëg euh, ku ñuy jàngal xale bu ñu formé nga war a nekk benn citoyen boo xam ne réew moo dem taxaw boo taxaw acte boo posé dañuy xam ne kii sénégalais la koy xam duñ ko xam rek ci ak colam wala ci comportement mais dañ koy xam aussi ci acte yi nga xam ne euh, daf koy posé mhm. dafay feeñ aussi ci jikkoom ci wàllu étique bi ak déontologie bi te ñun dañu bokk ci ñi gëm ne éthique ak déontologie boobu nga xam ne moom la ñuy woote. Euh, wax dëgg yàlla amul ci suñu curricula am amul suñu programme yi. Mm-hmm. Euh, programme yi nga xam ne moom lañ koy gis mooy ci secteur privé bi. Mm-hmm. Euh, parce que boo nee enseignement dafa am privé am. public mm-hmm. bu dee ci privé bi moom di nga fa gis loolu. boo demee ci privé catholique bi. loolu am na fa. xale bi bu génnee da ngay xam ne kii ci école bi la génne am na lu ñu lu ñu def ci moom. am na aussi ci privé arabo islamique bi. xale bi bu génnee di nga xam ne kii am na lu ñu def ci moom. ñaar yooyu ma tudd dafa nekk ay exemple ci ñaari diine yoo xam ne moo am Sénégal mooy l'islam mooy christianisme mhm. ñaar yooyu école yi nga xam ne ñoom ñoo ko taxawal formé ko manaam di ci formé ay xale ñoom ñi ñuy génne da gis gis ñoom éthique da nga gis ñoom déon da nga gis ñoom déontologie mhm. bu baax a baax a baax kon dañoo jàpp ne pour nga taxawal benn système éducatif ba pare bëgg écarter diine loolu loolu njuumte la. Hmm. loo xam ne suñu suñu état yi dañ koy def. te loolu hmm. njuumte la boo xam ne lu jar a corriger la. Hmm. parce que ñiy def con contraire bi mooy privé catholique bi. ak privé arabo islamique bi ñoom wane nañu ay preuve yu yu yu wane ne. mënoo jàngale ba pare bëgg a écarter diine ci biir njàngale. loolu benn la donc kon réforme yi nga xam ne ñun ñu ngi koy laaj ci biir ci biir système bi dañu bëggu si mu feeñ ci biir public bi. parce que ñaar ñee ma tudd ñi ngi ñi ngi jàngale curriculum bu public bi teg. mais nag ñoom ñu def ci loo xam ne euh, dañoo woo seen diine ne ko war a contribuer bu ñu génnee mun mm-hmm. naa joxe benn exemple suñu actuel président président Diomaye fay njàng moom la jàng moo tax bi mu ñëwee taxaw posé ay acte ñëpp dañu gis ne kii acte yi mu posé vraiment mësuñu ko gis fan la jànge école privée catholique mm-hmm. loolu ñoo ñu am na lu ñu def ci moom mm-hmm. mu jaar école publique sénégalaise mais mu jaar aussi ci enseignement arabo islamique boo xam ne ñett yooyu njambaan nañu ci moom loo xam ne bi mu taxawee dañuy xam ne kii ab sénégalais la. Mhm. boo xam ne aada ak mbaaxu maamam joué nañ ci moom su su waxee dina feeñ ci moom bu posé ay acte dina feeñ ci moom bi muy nuyu euh, Aminata ngi Ndiaye loolu lu ko lu ko ay maamam jàngal la. Mhm. mbaaxu mbaaxu maamam la. diine aussi ah, moom joué na ci acte bi mu bi mu posé ak grand imam bu bu Dakar jour korité bi loolu loolu aussi. Euh, yaru maam joué na ci yaru mm. mbaaxu maam laa bëgg a wax joué na ci mm-hmm. yaru diine yi nga xam ne jaar na ci ñoom ñaar ba jàng fi aussi joué na ci donc li ma bëgg wax mooy président bi wan nañu ne ndekete école sénégalaise buñ ko jëlee dans sa globalité ak li sénégalais yi gëm seen i ngëm-ngëm buñ ko joué daañu am ñu mel ne Bassirou Diomaye boobu. Mm-hmm. loolu aussi benn institution boo xam ne bëggoon naa ko def. Mm-hmm. kon moo tax ñun ñuy wootee ne suñu école bi vraiment nañ ko xoolaat euh, nañ ko jàngataat man dama am chance moom président moom actuel ministre de l'éducation bi muy def passation de service ak ak actuel ministre de de l'enseignement supérieur bi ñuy def seen passation dañ ko dañ ko def ci benn place mm-hmm. parce que ki nga xam ne mu leen doon jox lenge yi dafa boole woon ñaar yi parce que moom gouvernement bi fi jógee weer wu mujj bi dafa boole éducation nationale ak enseignement supérieur jox ko benn ministre mm-hmm. le ministre Baldé Baldé bi muy dafa def passation ak. Euh, Girassi ak Girassi. def mhm. passation ak Abdourahmane Diouf ak Abdourahmane Diouf. Mhm. ma am chance dem fa ñu invité ñu fi ñun en tant que G7. g waxtaan ne ma yow Sagnane yaay porté suñu parole. Mhm. devant les trois ministres. bi ñu porté parole bi ba pare ñoom bi ñuy tontu ñun bi ñuy porté parole bi dafa am benn point bu essentiel bu ñu ci boole mooy il faut ñu def révision wu suñu curricula yi. tout suñu programme bi il faut ñu def révision bi maanaam xam nga sax dañ naan rupture ma ñun li ñuy proposé mooy nañ ko jàngataat commencé ko ci racine bi. commencé ko ci préscolaire bi. ba université. lépp la ñu war a jàngataat. jàngataat ko intégré ci suñuy réalité. suñuy ngëm-ngëm. parce que Sénégal ñetti ngëm-ngëm moo fi am lislaam la christianisme la ak mbaafu maam. Hmm. ñett yooyu am na lu ci nekk loo xam ne dañ ko soxla. Hmm. nañ ko jëli. daf ko ay module former ki suñuy formateur mhm. former ki suñuy enseignant former ki suñuy inspecteur mhm. mu am module yoo xam ne day commencer préscolaire dem ba ba université mhm. nga xam ne danañu jàng façon xam-xam yépp mais aussi danañu bàyyi xel suñuy ngëm-ngëm dañuy ba dañuy bàyyi xel suñuy mbaax loolu benn la beneen bi mooy suñu làkk yi nañ ko dugal làkk yooyu ñuy dugal wax wax na ko léegi depuis euh, depuis ministre euh, Sëñ Mbaye Thiam commencé nañ ko dugal mais ba léegi dañoo nekk ci phase expérimentation ah, moo tax nga ne amul Dakar Dakar am na benn école boo xam ne mi ngi côté waagu ñaay bu ma juumul. Liberté 6 voilà Liberté 6 ñoom ñi ngi ba léegi ñi ngi ñi ngi expérimenté mais nag foofu dama gis ne aussi il faut ñu changer lan ma tax il faut ñu changer ñun loolu loolu bi ñu koy def ci biti la jógee maanaam programme boobu projet boobu ci biti la jógee ci biti ñoo financé ne dugal leen jàngaleem làkk yi expérimenté leen après léegi xam nga ki ko financé ci am na objectif ñun waruñu woon xaar. ba benn ONG bu nekk ci biti wala beneen réew bu nekk ci biti dañuy wax ne jàngale leen seeni làkki réew ak seen financement ñoom dafa am loo xam ne dañ ko ci bëgg a dugal non ñoom am nañu seen programme bu bopp quoi xam nga bitim réew moom lu mu la jox ne la indi ko rek ne ne la jëfe ko rek moom am na objectif moo xam wax na la ko mu leer moo xam wax la ko mu leer mais am na ci objectif loolu benn la kon ñun wa war ñu woon xaar mu jógee bitim réew mais ñun suñu état suñu ministère suñu institution ñoo war a préparer loo xam ne dañ ci dañuy dugal njàngaleem suñuy làkk ci biir ci biir système bi. ñu bañ a xaar kenn ñu ko a xaar beneen la. beneen bi mooy ci biir ci biir système bi am na lu ñu tuddee enseignement arabe. Mhm. foofu mu am benn euh, ñàkk compréhension boo xam ne li ëpp ci sénégal yi xamuñu ko parce que barki démb bi ñu créé moom direction boobu wax ne dañuy intégré waale les diplômés en en am na benn débat bu mag boo xam ne indi na ko te mu gis naa ne moom jaru ko woon. lu tax jaru ko parce ni ñu déggee arab jàpp ne boo ne arab rek ne dina lislaam déedéet man def naa Liban Liban 48 pour cent wu libanais yi c'est des catholiques. Mhm. xam nañ mais mais mais ay arab lañ. 51 virgule moo fay musulman. Mhm. je ñoom ñëpp ay arab lañ donc arabe bi du question. arabe rek ah. c'est une langue. voilà arabe langue la rek. voilà Liban boobu ñoom pour ñu. bañ a am jafe-jafe seeni constitution seeni loi dañ ni suñu président de la république ak nu mu mën demee chrétien lay doon. Mhm. Liban mën mënta am président musulman. ah oui oui ñoom loolu la ñu d' accord loolu la ñu tënk pourtant catholique yi duñ fa majoritaire kaa 48 virgule la. Mhm. le premier le premier ministre toujours day nekk un musulman sunnite le président de l' toujours day nekk un musulman chiite. Ah, mhm. et xam nga ñooñu. fexe nañu ba tënk seen réew ci tënkin woo xam ne langue nekkatul problème ci ñoom parce que ñoom ñëpp ay arab la lañu. donc kon dama bëgg wax ne arabe bi làkk la woo xam ne dañ koy jëfandikoo pour jàng xam-xam. tey fii ci si fay tey ci àdduna bi yëpp mathématique algèbre médecine képp ku ko jàng yaa ngi ko jàngee ci arabe Avicenne Ibn Sina. bi tubaab bi bëggee lëndëmal nit ñi daf ko dafa soppi tur bi daan na Avicenne mais il s'appelle Ibn Sina kooku moo créé xam-xamu paj tubaab bi bi mu bon loolu loolu histoire la xëy na du du lii mais bi tubaab bi demee ay téeréem la jël traduire ko en grec traduire ko en anglais traduire ko en français yóbbu ko seen université di ko jàngale mathématique bi ñuy jëf bi ñuy jëf bi ñuy jëfandikoo tey cosaan arabe la donc kon dama bëgg wax ne ne arabe bi làkk la woo xam ne dañ ciy jàngale ay xam-xam. médium d'enseignement la comme ni français nekkee ko comme ni anglais nekkee léegi nag ñu Sénégal bi ñu opté ne dañuy dugal enseignement arabe ci suñu système éducatif ñu bari dañoo xamutoon lu ko war pourtant ki ko dugal sax du musulman. c'est le président Léopold Sédar Senghor moo dugal enseignement arabe ci suñu système éducatif depuis 1962. Hmm. commencé ko ci collège ak lycée mu nekk LV2 mu nekk deuxième langue après français. Hmm. mu nekk ara mu nekk arabe après ñu intégré anglais ñu ñu intégré espagnol bi ñu demee lycée yooyu continuer ñu dugal russe. dugal portugais. Mhm. au au niveau du du secondaire. donc boo ñu dem ba après ñu soog indi ci élémentaire classique bi mu nekk arabe comme langue kese comme langue. ñu dawal dawal ba ay 2000 2001 président Wade moo dugal éducation religieuse bi ci biir élémentaire classique bi. Mhm. et mu confier ko les enseignants en langue arabe ne yéen comme yéen a jàng arabe yéen a gën a mën a jëfandikoo arabe bi pour jàngale l'islam bi et église bi ñu convoqué leen benn benn daje la papa en 2002. ñoom ñu opté mënuñu am ñoom nombre ay enseignants éducation religieuse ci biir système cla classique bi mais ci seen i école état ni leen appuyé. pour ñu jàngale pour ñoom aussi ñu mën a am ay enseignants yoo xam ne mm-hmm. ñooy jàngale wàllu éducation législative ci seen école mm-hmm. donc loolu loolu mu nekk lu rafet loo xam ne euh, vraiment Sénégal war na ci jàngaat ñi ñëw bees war nañu jël loolu ñu ñu dépoussiérer ko teg ko ci taabal ji xool nag nan lañuy ñuy fexee ba loolu jur ay sénégalais équilibre bi am jur ay sénégalais yoo xam ne ëllëg daañu